من ظن غير الله يغني أو يضر mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ngir ngeen mën a am ay xibaar yu sell bàyyi ko ci dëkk bu tedd bi di Touba ak li ko wër ak mbooleem àdduna bi wërngal képp abonné leen ci seen chaîne Texcom TV Bamba Texcom TV Bamba chaîne bu wóor ànd ak xibaar yu sell. nga xamante ni moom moo jiite section bi. daayira Ahibaahil Khadim bi nag maanaam section Mbour ñëpp teew nañ fi. muy Kër Moussa Anne ñëw nañ teew nañ fi. Euh, Sandiara maanaam euh, sëñ Mor Diop mu ngi fi ak sëriñ Mbacke Diop mi nga xamante ni moom mooy jëwriñu euh, Sandiara. maanaam bu dee ci jiwaaloo maanaam sëriñ Modou Ndiaye mi nga xamante ni moom moo jiite waa jiwaalo ànd naag waa jiwaaloo yëpp ñëw nañ bu dee ci Mbour. Serigne Diaw kam bi nga xamante ni moom moo jiite ak Baye Moussa Gueye ñu bay Bira Thiaw ñu ñu ngi fi. ci mbirum bis bi saab si ak lu ko waral ak section Mbour bii section Mbour bi nag 1972 la ma sëñ Cheikh Mbacke jële ca daara ja ne ma bëgg nga ñëw toogal ma Mbour nekk fa nekk sama digganteeg taalibe bi ndax ñu bëgguk taalibe lu ci manqué ak ñàkk xam waaye ak taalibe day ñor na leen kon nag yaaw laa bëgg nga taxaw ma doon fa sama jëm loola it muy soixante ba ci at mii nu nekk xeebu leen ma te itam lépp luy saa bëgg tey suba ak yéen cam fekkoon te ngërëm de ci sama man mii la jugee wóor ne am ngeen ngërëm waaye nag am ngeen ngërëm ndax gërëma sama bakkan ci da tegu ci yoon lii xane xam ne ki sosoon yoon muy sëñ Tuubaa ba ci Cheikh Moussa ba ci sëñ Mouhamed mi ngi nekk ci kaw yoon wa ci laa leen gërëme waaye fekkoon te gis naa ci yéen lu bokkut ak loo xam ne doxinu yoon wi du ma leen gërëm ndax juróom yéen fukki at lee maam kat kon war ma lu ma wax naa ko xam waaye yéen a gën a xam ne lii wax mi ngi seen biir ci bennoo ak jàppante bëggante ngir nde wii ci ndigal sëñ bi kon lii ma wax mi ngi ci yéen wasalaam Cheikh Moustapha musu la war jalum la wax loola la nar moom lu mu la ko bor kenn musu ko gis mu bangam bu dee ci taar moo raw ko ne bu dee sawar moo raw ku ne fu mu toll di kunkunu ngir bëgg lislaam jëm kanam maax la tuuti ci tabam nga xam ne Moustapha kemam li tax amul fenn itam la Moustapha mi ñàkke kem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 ñi fi teew itam benn mbooloo rek la sëriñ bi moo fi nekk ak dongo yi kon waa section Mbour ci njiital sëriñ Cheikh Thiam porte parole bi di jaw Ka na kàddu yi gàtt la hawla wala quwwata illa billah ali azim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Cheikh Moustapha Al Karim ñoo ngi lay nuyu ci turu Serigne Alassane Seye mi nga xamante ni moo fa nekkal Serigne bi di la nuyu ci turu Serigne Cheikh Thiam. mi nga xam tey yàlla dogal na moo jiite section Mbour sëñ waxoon ni boo demee na nga wax sëriñ bi ni ko maa ngi koy nuyu te di ko ziyaare te di la xamal ni Mbàkke section Mbour gépp day Mbàkke nee na ñu ngi ci sa ginnaaw nee bu ñëpp mel section Mbour de Mbàkke boo tëddee nanga nelaw kere ba nga nee moom la lanu taxaw ni yaw la ba sunu jonni tay ji wax nu waxtane ko nu def dara mbacke yow rek ya fi ni noo lañ ñaanal mbacke nga yàgg fi lol te wér dundu téeméeri at ak ñaar fuk noo koy ñaan mbacke yal na nga fi yàgg te wér señal san nak waxan nañ Cheikh cham mii mu tek ko ci kanam mbolo mi neena da ko doy doy nañu nun ñit noo ngi xëy daayira yi doy nanu ba tax na ñu jël ko tek ko suñu kanam ndax ni mu ànde woon ak job, allahumma Diop allahuma ifirla warxama rafet na lool kon kaddu yi gudd gat serigne Cheikh Thiam mi moon jité section Mbour nu nekk ci ginnawam fas yene di déglu say kaddu suba ak ngoon jek nanu nopi nañu lo wax loh lan wax lo wax lu ko assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu waa section Guinguinéo seen kaddu sen Cheikh Dia Naydé ñoo ngi siyaare ci turu section naw góor ak jigen mag ak ndaw di ñaan sa saaborom guddal taw fan lo te alak ak ak xéewal ak ndimbal sun borom ba li nga bëgg a liggéey ci l'islam ak yoon sun touba nga han ko mu liggéey ko ba mu mat tepp ba àgg bala coleet danaa woolu noonu sant bu baax ndax bis bii saa borom fekke loolu ko ay yoon yoon mu doone ko fekkee waa man na sëkk ak jëm saa borom dogal itam yow mii nga xam yow na borom yow no xel bu baax baax baax na ci yow lool ndax duy digal yaa ngi te jiitu te dinañ ci soññi li ñuy ñaan di ko ñaanal mbooloo mépp moo di ñu ña nga ñaanal ñu fi nga nu jaarale nu bañ koo teggi li nga ñuy teg li nga ñuy def loo mu yomb nu lool li nga ñuy tere nga ñaanal mu sori nu nu sori ko ba duñ ko jege duñu jege wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kon ñu jox kàddu gi waa section Thiès. Serigne Moustapha ñu ngi lay nuyu ci nuyoo bu gana a tedd ci turu Serigne Malick Dia mi nga xam ne yàlla dogal na mooy sunu kilifa ci fii nga xam ni mooy Tivaouane ak Thiès ak lépp lu wari Thiès ak Tivaouane mboolem section Thiès ak Tivaouane ak Kayar ak lépp lu ko wër. ñëw nañu ci bis bii ngir siyaar si ngir sa ndigal ànd ak Serigne Dia yi nga xam ne nag mooy doomi Malick Dia ànd ak ay doomi bàjjanam ànd na ak ay doomi baayam ànd na mboolem ak kilifa yi nga xam ni moom la ko baayam batale woon euh, mu jiitu ci kii nga xam ne mooy Serigne Cheikh Fall bu guumuun mu jël ko teg ko ci kanamam Eh, mu jël ko teg ko ci kanamam nu ànd ak pir eh, pir fa tubaarakallaahu seen jëwriñ ji nga xam ne moo leen doon jiite yàlla dogal na dafa wàccub liggéey ba mu wàccee liggéey yabal nga fa sa mu ñëw ànd ak sëriñ ak kilifa yafa nekk ñu dem taxaw taxawaay bu rafet kon Mbàkke loolu ñu ngi la yëgal fa tubaarakallaahu kilifa yenn fa fekk dañoo jëlaat seenu buum nas ko ci kilifa gafa nekk teg ko ci loxol sëriñ ni lépp loo xam ne lii mi ngi ci sëriñ woote na ko loola ñoom ñu ngi ci loolee kon mbake nga xam ni Tiwaawan Cees Pire ak la ko wër lépp ba Kayaar ba dem route la ñaay ñoom ñëpp ànd nañu mobilisé ñëw ci bis bii kon Mbàkke ñu ngi lay xamal ni la ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla sa taxawaay yàgg lool képp ko fi mos a jaar ci xalifa Cheikh Amadou Bamba ci sa xalifa maam euh, Ee, sëriñ si Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma ba ci sa waajur wii di sëriñ Mbacké noo ngi ñaan ci yàlla ak yonent yàlla Muhammad yal nañ leen sutu fan ee, yal lépp loo naal Mbacké ci sa liggéeyu maam bii lépp loo ci bëgg ci sa liggéeyu maam bii yàlla na yàlla may wér ak kartan goo ko mën a ko mbooloo mii sëriñ nee na mbooloo mépp ci sa ginnaaw taxaw di la déglu sa ndigal rek boo diglee mu ñëw ci sëriñ sëriñ mbooloo mi bu ndigle mu wàcc ci ñoom lépp luy leen digal loolee dinañ ko def sëriñ mi nag na mbooloo maa ngi ci ginnaaw xam naa nu gàttal wax ji eh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala yeneen section yi fi nekk yëpp jël nañ si ay kàddu kon dañuy jox sëriñ Abdou kan mu wax ci turu sëriñ naa kan waaye ci turu section Mekhe Touba Kane sëriñ Abdou Karim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 cheikh si ci biir section bi tànn sëriñ Mor Kanji ñii di xalifa sëriñ Asan Kanji ci Daaru Kanji tànn Alaaji Njaga Saar Kéeri Baxdaat dellu tànn sëriñ Mor Saar moom sa Ibra Saar sa jàmbaar ja jigéen ñëpp fa tabaarakallaa tànn nañu soxna a Gay ak soxna Ayda Silla sëñ Asan Jeng mi topp ci ñëw na ànd ak Serigne Gueye ak trésorier bi Cheikh Diop ñu ànd ak mbooloo mi sëriñ bi ñu ngi leen nuyu sëriñ Mbaye Ndao nag wax na ma léegi bi may ñëw téléphone ni ma juróomi nit lañ may ku nekk may ko duñu ko ëpp waaye na nga xam ni la dalan Moussa diggante ma yàlla dal nañ suñu diggee bi Moussa dafa yor aw yat ci loxoom suñu borom ni ko Moussa lu ne ci loxo mi xanaa tam la gën a jub gën a gàtt mooy aw yat waaye dañuy yat dama ciy sukkooti dama ciy nangam dama ciy nangam bañu ko laajee muy neex ak yàlla wax ak yàlla daa neex waaye mbàkke sunu sañoon bu taxawee yow dañ fi yem defe naa wax ji mënoon naa ñàkk ci contexte bii ndax yaar rek a tax ñu am suñu bopp suñu buur jub fii ak jub fee yàlla yeex nag te inna lillahi ibadan man nazara ilayhim nazaratan سعيد السعادة لا شقاوة بعدها بيني بأدني تكي أما جام يالتي كوزر يوخم يكو فخي بسن ياري بجي داتي كننم دينا جام تخي غوخم تخي دور جتو نن نن من نكو أم تكر يو بغ نكو أم تكر يو كنين كو كان نكو تي جابناني la sëriñ Tuubaa ñaan ci bis bi feeñ na juróom benn at yi de ma ngi fii doog dem gàmmu te tol na temps yo xëy bis bu ne min wi lay ñew suma kër waaye dafa xamni allahumma allahumma allahuma khayra ayami yawma alqaaka fi sëriñ Tuubaa mo ñaanal ni yalla bis bi may dajé ak yow jëri ko njaayam diko ñoo ñëw na mu ko dem suma ngeen ci bis lolé tay kenn wéranteetu ko nek ngeen ci bis dong mo tax bis bi taxaw ni mu taxawé ci jamm ji jëk mo ci mujj kon nag mbàkke yow sant nañ yàlla ndax bu lii amul woon it foo maa nekkoon fekk la fa la sëñ ibrahima Diop almashe yi waxan sëñ Tuubaa fa fii ay ardin kunta yantaadu kal wara walaw xalfa indin wa siinin turkiya jege sil noppal nit ñi soo demoon ba ginnaaw siin ak turki ak indi nga sañ fan fekk la fa ak lu nu fa mën a andi nag loolu moom daf sa diggante yow ñu ngi lay sant la ma xam daal siree baaba waxan sa maam ja wala Cheikh Sir Abdou wa ma aybuhu ila ibadati rabbihi wa naful wala fi surbe masaayi ku xam sikkus kii mu ne ah ku ko xam yaa ko xam boo amee sikk daa mooy nangoo jaam yàlla ak boole ñëpp di leen dimbali soxla lu kenn dara loolu nag yàlla def na ko ci yow Mbàkke yal na yàlla guddal fan yi noo ngi ñaan de askan wii di askanu maaram kuñ ci mas di yéem aw fanam yéen a ko tudd fan ndax nekk di suñu njëriñ la tey suñu euh, la nun nag mooy section bee section quatre-vingt-dix-neuf pour cent yow lañ yaakaar kenn mooy la ci kenn déng-déngawu ci te du yàgg ba nga yebal fa nit muy defare du yàgg ba nga yebal fa nit muy defare lu yàqu loolu danaa la ko garantil Mbàkke wasalaamaaleykum wa rahmatullah kaddu njëriñ li nga fi wax lépp njëriñ la kon say kaddu daa gàtt ñu ngi ñaan su sëriñ bi tontoo kenn ku ci nekk buntu euh, Saalum bi fa ngay jaaree ndax buntu ba balee daa am ay bokk taalibe yoo fa nekk bisimilah sëñ bi Bismillahirrahmanirrahim bagi Cheikh Moustapha asalaamaaleykum wa taala wa barakatuh mbokki dal bi moo ngi leen yi Cheikh Mouhamadou Moustapha muy section yi nga xam ñoo jot a section Mbour ak Guinguinéo ak Touba Kane ak Thiès di leen nuyu turu kilifa yi nga di ko jaarale ñaari kilifa yi jëmale ko ci ñëpp muy Serigne Cheikhouna Kane mii ak Serigne Jam yi yóbbaale ci mboolem jëwriñ yi fi teew yëpp rek Serigne Ba ngi leen di nuyu bu baax te di leen sant di leen gërëm di leen jaajëfal ni mu ko daa waxee ci pas-pas yi ak pëstéef yi ndax li bëgg tey ak ëllëg kat ñaar yooyu doo nga koy maye pas-pas ak pëstéef pas-pas mooy. am loo nar am loo bëgg am looy wut loolu mooy pas-pas positif nag mooy dox ca lala koy may dox ca la la koy may loola mooy lii kon nee na xam na ne saabu bu janoog bu ne rek dana yëg ci basiira ne fa leen bàyyi woon lépp yokku na pas-pas yokku na positif yi yokku kon loolee nee na mi ngi ñaan sunu borom mu yàgg lool mu yàggal am bi leneen la ca des mooy nee na nan maase santaat yàlla bu baax sant Serigne Touba mi nu defal tawféexi bis bii tawféexi guddi gii nga xam ne eh, ak farlu mayewu ko ak njàmbar mayewu ko waaye li koy maye mooy suñ borom moo la la koy jagleel rek àggale rek sëriñ Abdou Karim Mbacke moom Cheikh Mahamadou Fadal moo doon agsi noonu kon sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di ñaanal nee na nu xam ne guddi gi nag nan ko fonk bu baax ci xasida yi sëriñ Touba yi ak alxuraan bu guddee nun ñëpp nan maasi ci loolu ànd ko ak moom ba set lu way man ci xasida yi ak alxuraan gi nag noonu la ko Cheikh Moustapha santaane woon nan ko fanaanee noonu te xam ne li du dikk bis am xel mënu koo xalaat xel mënu koo daj waaye li am solo rek mooy pas-pas yi ñu indaale ak pësiv yi ak dégg ndigal leneen la ca des li ko sëñ Abdou Karim waxe it tontu na li may bëgg a wax liggéey bii mu santaane di ahibal xadim nee na liggéey baa ngi nii moo def jubtukaayam fu fu waay mën a nekk tam wóor la loo bëgg ma nga caag nee na nga nekk ci liggéey bi xam na nag pas-pas yi ngeen ci am ak yitte yi ngeen ci am waaye loola nee na mi ngi koy feddaliwaat bu baax muy Ahibahil Khadim gi sëñ Cheikh naa lii mu wax léegi wax ju maanu la li mu wax ne sëñ bi quatre-vingt-dix-neuf pour cent xam nga cent pour cent suñu borom sax mayu ko boppam ndax daa yebal yonent bi sallallahu alayhi ne ko yaay yërmaande dama laa yebal ci mbindeef yëpp waaye mbindeef yëpp nanguwul kon cent pour cent amut loolu suñu borom moo tax sa ay turam mu def ko quatre vingt kon li nga wax lu wér la waaye nag li am solo mooy sëñ bi xam ne ne moom nangu gu wóor fa cofeel gu wóor a nga fa jàpp gu wóor nga fa kon mi ngi ñaan suñu borom loola mu yàgg foofu ngeen nekk yëpp day barabu digal barab boo xam ne bu ndigal mosaa yëkkati ko aat du am deltu gannaaw du am taxaw du am loolu def li sëriñ bëgg loolu rek ci ngeen nekk kon nen loolu jël gin jëf mi ngi sant bu baax a baax nee na mi ngi fetli nag nu gën a góorgóorlu baax ci jaamu yàlla ci ragal yàlla ci am pas am pësséef boole suñu bopp tey dimbalante wax naa ko léegi ci gannaaw nee na itam kenn ku ci nekk ci ñun liggéey bii mënu sant ak sol gii mënu sant nu sol ko kenn ku nekk jàppal ne boo ko solee ba génn na nga xam ne jëmam ji moo génn ku la séen nag na xam ne jëmam ji la séen loolu nag mooy boo boobaa nag na nga xam ne nag la war ci yow ci pësséef la war ci yow ci ay teggin la war ci yow ci ak baax ba ku la gis xam ne kun defara nga ne loola moo na war kon nan xamne ne bi ak rafetal tax ko juk waaye mbirum batini ko ko sol ku nek jappal ni bo genn ci mbeddi mi rek jëm Cheikh moussa mohammed tay dox xamal ni ngay wax xamal ni ngay doxé xamal fi nga jëm xamal fi nga jëm xamal ni ngay wax xamal ni ngay dox ndax ku la seen rek jëmmam lañ la di seen dafa am lu mu bëgg ci noonu kon nan nan yokkat pas-pas yokk passé bi néna nak mi ngi ñaan ci barkeb ki ni defal bis bi nga xam lam ci dële ëlëk lañ ko xam bay mataar Jóob cump daa da ñew fekkunu fi mu dal di jeul gene jëf dal ni ko tedd ka de nee bis muy seigne mudou mustafa na ngeen xamne ne li leen andi fi day mat nako ndax bu gene fi ñëwul woon it da ngeen jëm feneen te da ngeen fa def leneen waye fi ngeen jëm ab kay la te li ngeen fi def du yaqku des na leen ko dencal ba fo xane buñ ko tegee seen ndox seen xodona dana sedd nee na daal ca ne waaye nag na ngeen xamne fi ngeen nek ci aduna lu ngeen fi gis muy niru tiranga na ngeen xamne ne day yëddu yëddu waye liñ ma boole gene ëlëk ngeen koy xam waaw waaye lii nu gis ñun bu dee yënd rek kon ëllëg noonu lan la ñuy gis te neen tiraanga yi gis yëpp lu yëddu la lu sàcc di yëndoo rek mooy xéewal yi ñu gis waaye Cheikh Moustapha nee na lim nu boole moom ëllëg lañ koy xam kon nañ fekk li war raxasaay jàppat ndigalam mi Cheikh Moustapha sëñ bi wax na ko léegi jër woon doon te day loo ko nag yem ci képp rek nan fi yem képp bu kenn jadd bu kenn gees bu kenn wëlbati bu kenn aar ndik bu kenn taxaw bu kenn déglu lan bu kenn déglu kenn nañ ko na jàkk rek buñ ko defee day li wér te mooy lan bëgg daan ko tegal loo xam ne fu mu wën loolu am nañ ko am na ba ko sax kon nag na ñëpp maas ñaanal ko moom Cheikh Moustapha Mohamed mu gudd fan lool gudd fan boo xam ne kenn musu ko gis ñaanal tam lu ndongaam yii Cheikh Moustapha am sahaaba yoo xam ne kenn musu ko am sahaaba yu dëgër yu gudd fan yu bari xaalis yu mën a lëggee sëñ Tuubaa li ñu am lépp ñu jox ko moom mii loolu nag ñëpp maas ñaan te amu sikki ci ne guddi gi bu ko ñaan suñu borom dana ko def wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñëpp maas waaye ñëpp nangu ànd ak ñun si liggéey bi loolu ak cant la ak cant la loolu daal moo ma si gën a neex waaw ndax euh, doon na métite ji waa ñu ne section nangam sëñ bi comme ni ko jëriñ ji waxee sànq mu ngi fay yebalee ngir ñu àtte dara waaye ñëpp dañu maase doon lenn waa li ñuy def daal mooy di ñaanal sëñ bi ñaanal Cheikh Moustapha mu yàgg fi ndax mooy suñu ndam mooy suñu ndam waaw ñun amuñu lu dul moom waaw kon moom la ñu am waaw nañu wëlbatiku feddali laxasaay yi waa xam ne liggéey baa nga ca kanam nag na mu ko doon waxee rek liggéey baa nga ca kanam waaw daf ñu bëgg a liggéeyloo ku bëgg a liggéey Serigne Touba ah di nga ñëw soobu si Ahiba Khadim bi def si sa lépp nag waaw def si sa lépp waaw ndax defuñu si dara waaw defuñu si dara cer cersi lu ñu yor lan lan ci def waaw kenn ku nekk say soxlaa ngay mat say kër ngay mat loo bëgg def ko de kon daree sëñ bi war mën a taxaw fu ñu toll nii waaw bu ñu demee nan miraas sañ bopp ñu def ko si liggéey sëñ Tuubaa bi mooy liggéeyal Cheikh Moustapha asalaamaaleykum ñu daa mel ne suñu xel gën daal bi ñu gëstoo gis nañu Abdou a borom Makarim al Axlaa mu ñëw nuyu ci sëriñ bi waaw waaw ak cant la ak cant la waaw ndax euh, leer day xeeñcu leer waaw kon ñoom euh, dañu bokki mbir waaw dañuy bokki mbir waaw kon yoon la bis bu mel nii mu ñëw euh, tatagal ko wax dëgg ziar si ko waaw si bis maamam gi waaw ndax Cheikh Moustapha wax dëgg képp koo xam ne yaa ngi nekk ak moom yaa ngi nekk ak moom wax dëgg ñun ñuy taalibe ñun ñi ay taalibeem daal rusuñu waaw rusuñu ndax mu ngi ñuy tegloo mu ngi def loo ñu war a def eh, di ñu liggéey loolu li ñu war a liggéey ba pare jiituñu si nag waaw si lépp nag waaw loolu moom ak cant la rek jërëjëf sëñ Cheikh eh, mi nga xam ne yaa ñoo lay sant bu baax a ñaanal fan gudd ak wér-gu-yaram ñu gën a mën a ànd ak sëriñ Moustapha gën ko doolee liggéey lu baaxa baaxa baax ñu fekk ay ati ati ati ati and ko ak section Mbour gep ñep baña mag ci barke borom Touba jërëjëf man zanna ghayra llahi yughni aw yadur fa zaka bi darayni sotatin wa dur mbokki talibé yi mbokki julit yi ngir ngeen mëna am ay xibaar yu sel bayiko ci dëkk bu tedd bi di Touba ak liko wër ak mbollem aduna bi wërngal kep abonné leen ci seen chaîne Texcom TV Bamba Texcom TV Bamba chaîne bu wóor ànd ak xibaar yu sell